innaka daaru salaami rabbi wa tuubaa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di ziar di rafetluwaat bu baax a baax ànd bi ngeen ànd ak ñun ci seen chaîne bi di Assalaamy TV tey jii nag ñu ngi fii ci Daaru Salaam ci cant gi nga xam ne at mu jot sëriñ Mbacke Dieye daf koy amal jagleel ko jëm ju tedd ja di Serigne Modou Rokhaya di bés boo xam ne da ko ciy fàttaliku di ci amal njàngum alxuraanul karim njàngum xasida loolu lépp mu jagleel ko ko waaye amal ci ay bernde ba tax na mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi dañuy bàyyee ko fu ne ngir ñëw ànd ak moom bés bi nga xam ne bésub cant la bés bi nag nekk na bés boo xam ne ni ko sëriñ Cheikh Anta Mbacke moom sëriñ Modou Rokhaya doon fàttalee ci at yi weesu ne mooy ubbi bés bi nga xam ne ci la ñuy amal yees lu daaru salaam maanaam bés bi ñuy dajale addiya daaru salaam bi kon cant gi nekk na cant goo xam ne moom la ñuy waajalee bés le moo tax at mu jot sëriñ Mbacke Dieye ànd ceeg mbooleem ñi nga xam ne ay xaritam lañ ay wóolëreem ay soppeem waaye ak njabootam ngir amal cant googu jagleel ko jëmm ju tedd jooj di Serigne Modou Rokhaya mu nekk jëmm joo xam ne liggéey na liggéey bu am solo lool ci yoonu murit rawatina fi nga xam ne moom moo di ci daaru salaam kon mbokk yi ñu fas yéene ànd ak yéen ci cant gi nga xam ne moom la Serigne mbakk Dieye amal ci atum 2021 bi daara ji nga xam ne tim mooy daaray kaamil fii ci eh, daaru salaam moo ñëw taxawee liggéey bi ni mu ko baaxoo taxawee ci at mu nekk sëñ Baara nag di ci sant bu baax jaarale ko ci sëriñ Ahmed mi ak sëriñ daam mi nga xam ne ñoom lay bal ñu ànd ak daara ji di sant eh, njaboot gi nga xam ne ñoo fi nekk ci eh, liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy taxawee te jiital ci alquran ndax alquran kat lépp lu mu jiitu rek loola mën naa yeween kitaabun bihi narju minallaahi wa nanju bihi dunya wa uxra min karb bayit boobu rek day mel ne mandargaal na lépp kitaabun bihi narjo minallaahi rahma mooy téere bi nga xam ne ci la ñuy yaakaare ci yàlla yërmaande te ci la ñuy mucce wa nanju bihi dunya ci la ñuy mucce fii ci àdduna ak àllaaxira wa nanju bihi dunya wa uxra minal karb ci lépp luy jafe-jafe kon nag lépp luy jafe-jafe yàlla na ko yàlla teggi fépp rawatina nag pencum cheikhul xadim mi nga xam ne ñun ci la ñuy xëy ci la ñuy gont te ñun ñii ñëpp ñoo ko bokk wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jàmm jii fi nekk ci réew mi kus néew alxuraan ji ñu fi jot di jàng kus néew ko fi indi ñàkk jàmm gii ci réew mi kus néew day sàggane gii ñu jot a sàggane alxuraan kus néew moo ko fi indi kon day mel ni bu ñu bëggee am dal bëgg am jàmm ak yërmandeeg mucc faaw ñu delluwaat ci téereb yàlla bi kon yéen ñi yàlla dogal ngeen nekk ci ba bu yàlla doon taw ay xal du yegg si ci suñ kaw ndax yéen ñu tiimale lay teemu yegg si suñ kaw kenn mënul sant cant gu jot seen dayoo dëgg dëgg dëgg xanaa dañ koy jéem rek ba tax sëriñ nee na lim leen ëmbal ci cant ci xolam mënu koo génn ci làmmiñam te man mi mu koy wax loolu attanoo ko ndax dafa rëy ku ne xam na ne lay nëbb ca xol làmmiñ mënu koo tudd kon nee na mi ngi leen di sant cant gu am tàmbali waaye amul yemuwaay ndax daf koy labal te jëmmi yàlla ji dul jeex fi ndax cant yëpp ca moom lay dellu mu ngi leen di gërëm mu ngi leen di ñaanal barkeb alxuraan dotti ko ci seen kaw ak seeruñ jabar ak seen kilifa yi leen fi yebal ak mboolem ku leen ko yéene barkab sëriñ Tuubaa hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa walah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ila maratan oxra insha allahu taala ñuy ñaan sëriñ Jéey bisam bi muy def yàlla jëmale ko kanam ba lépp lum ci sabab lu rek yàlla defal ko ko mu koy man ay ati ati at ñu koy sant bu baax di ko ñaanal ci bisam bi lépp mu lu mu ci man ren yàlla na ko man lu ko ëpp déwén. jigéen moom ku ko yor ba dooleel ko ba mën a taxaw ci sa bis rek di la siggil yaa ko dooleel nee nag sant na leen bu baax a baax moog soxna Faati mii di nga xam ne mooy rakki mbayang nee na lu ñu man ren bu déwénee yàlla nañ man lu ko kawe ci barki Seydina Mohamed mbayang nag nee amul fay sëñ Mbacke Dieye parce que nee na lu ko neex ak lu mu bëgg toujours mi ngi ci. nee na ak yaayam ji di maa Maawa Diouf ak i rakkam di Maam Binta Diop ñoom ñëpp ñu bokkal kër gi nee na sant na leen gërëm na leen amul seen fay yàlla mi am fay nag yàlla na leen fay ngeen gi fay ci barki Seydina Mohamed. lépp ku fi teew rek sëriñ nee na nag mi ngi sant soxnaam yi ndax ni ngeen si daw lii ñu def defoon nañ ko fi daw defoon nañ ko fi daaw jéeg defoon nañ ko fi daw jéeg yàlla nañ ko fi defaat at mii ñu ñuy jub ci barke Sëriñ Tuubaa ñu ko fekkawaat ndax bis bii bu ñëwee dootu leen noppalu guddi dootul noppalu bëccëg ndax la wax dëgg yàlla barke démb ba tey yéen ngeen nekk ci ci liggéey bi at mu jot noonu ngeen koy doxale kon nee na mi ngi leen di ñaanal yàlla may leen fan wu gudd ànd ak ku wér ak ci barke Serigne Touba yi sant yaayam yi di sant magam ji xam ne magam yi nga xam ne ñoo fi nekk ci barke mi ngi leen nee na mi leen di ñaanal yàlla borom gaawaan jërë ngeen jëf mboolem rekk góoru bawal ak jigéenu bawal magu bawal ak goney bawal sëriñ bi nee na maase na leen ci sant na leen cant gu wér goo xam ne xarab du ca toppaat Euh, di jagleel nag ab sant sëriñ Mbàkke Jéy sëriñ Mbàkke Jéy lii mu def euh, cër ab cër la ci ab liggéeyam ci sëriñ Modou Rokhaya ndax bis yombut ci bis buy bëgg a am fukki at wala fukki at ak nangam ku ne xam na ne bu du toon pas-pas yàlla nanguwu ko ak meletut nii te bi mu koy def ci biir kër gi la ko tàmbalee woon ci benn baas muy dem ba mujj yàgg xajatul ci biir kër gi mu génne ko ci biti biir kër gi di fees baas bi di fees mu dox ba mu yàgg muy àbb yeneeni kër di fa dalal ay nit ñuy yendoo bëccëg bi baagante nee na loolu ku ne xam na ne pas-pas la ak jëf ju yàlla nangu li ko ko may nag mooy jàpp tàbbaay yi euh, moom sëriñ Moodu Roqaya tàmbali na ko wan boppam ci àdduna te demagut ëllëg yowmal xiyaam mu santaatit nag ci li muy def ndax ak yaatal dafa am njariñ nee bi mu téyee ab cëram muy sëñ Modou Rokhaya bañ ku ko gis xam ne sëñ mu Rokhaya dib cëram mu wëlbatiku nag di yaatal loolu moo tax at mu jot mu am kum ko tudde baren ji mu duppee ko njabootuk alxaaji seexu mbàkke alxaaji seexu mbàkke bokk ci magi boroom gaawaan yi wala boog mu bokkoon te jëwriñi boroom gaawaan ya doonoon it boroom cërub yàlla boo xam ne kere ba mu déggee déclaration sëriñ tubaab yi moo xam ne lii ne ci loxol sëriñ tubaa te ñépp wër ko ku ne jafandu ci bëgg cee jot sëriñ tubaa ne leen lii ma ngëpp nag moom ak bokk du ko maye li ak bokk di maye mooy li nga xam ne moom lañ jëlee ci ndey jëlee ko ci bàyyi lii nag maa ko liggéeyal yàlla ba yàlla def ko ci sama loxo bi donnewu ma ko ci kenn kon ak bokk du ci maye lan moo ci mën a maye mooy bokk ak man pas-pas te tege ca yoon wa loole ba mu ko sëriñ Tuubaa waxee mbooleem doom ju mu juru bind nga ab leetar wala wax nga ci saw làmmiñ na ko kon bis nekk tey jaay naa la li ma bokk ak yow jënde ko ci lii nga amee loolu moo leen may li sëñ tubaa defal seex si man koo defali doomam waaye buñ jaayante wutoon duñ ko mën a am kon beneen cër la ne am ci sëñ tubaa waaye du cërub dong taalibe gii waaye ku ñu jébbulu rek doomi sëñ tubaa yee la njëkk a jébbulu ci sëñ tubaa loole nag moom la alxaaji seexu mbàkke xam tax mu jaay lu mu bokk ak sëriñ tubaa jënd ko doon ab taalibe te ba mu doonee taalibeeb sëriñ tubaa it buntam mooy boroom gaawaan waaye ba mu ubbee buntu borom gaawaan kenn mësu koo séenaat ci beneen buntu nag moom alaaji seexu ku dikk daaru salaam nga koy fekk ku dem daaru salaam nga koy bàyyi te lépp lu xew ci daaru salaam fekke na ko ca doon na ca dara ci lépp lu mu mën a doon doonoon jëwriñi borom gaawaan ca tool ba ba mujj di jëwriñi sëriñ Muudu Maamun ca tool ba te mënoon na ne sëñ Muudu Maamun maag borom gaawaane woon waaye kero ba mu takkaatee ak laxasaayam ci sëñ Muudu Maamun daa mel ne ku mus sa defal borom gaawaan dara ay yére mosu koo tax a jóg kër gu rafet mësu koo tax a jóg lekk gu neex mësu koo tax a jóg lu dut waxtu wu ne ma nga ca tool ya jaayante ko te amub cër ba ku ne xamoon na cërub alxaaji seexu mbàkke ci sëriñ tubaa te mu jële ko ci borom gaawaan kon loolu bu sëriñ mbàkke jéy rafetalaate tudd leen bis bi nee na sëriñ Cheikh nee na loolu bég ci képp la mën a def bëgg ci képp la mën a def ndax foofa kat ku ne xam na ne ñaa la fa ne alali boroom gaawaan rekk la sëriñ alxaaji moo fa nekk ca kër ga di ilimaani jumaa ji sëriñ Mamor moo fa nekk yor daaray alxuraan ja sëriñ xaadim ma nga fa ne ca daaray xam-xam ja ci sëriñ Murtala kon ku ne xam ne ne ñooñu ponk bi ñu taxawee mooy ponk bi borom gaawaan gën a bëgg te ñu taxawal ko fa kon sëriñ Seex nee na ñooñu seen lépp moom la war seen lépp moom la war kon bu leen sëriñ Mbàkke tuddee bis bi sëriñ bi nee na du la mën a wax lenn lu weesu jërëjëf sëriñ Touba dafa wax ne aajooy àdduna ak aajooy àllaaxira dara du ko faj lu weesu liggéeyal ma aajooy àdduna ak aajooy àllaaxira mu ne kon nag aajoy àdduna ji nga xam ne moom la ñëpp am mooy tàggook jàngoro ji mu ne kon naa fas yéenee liggéeyal sëriñ Touba ngir tàggale murit yi ak jàngoro ji ci la tàmbali woon bâtiment Serigne roq Rokhaya bii nga xam ne fi la Serigne Mouhamadou Rokhaya nekkoon daan jaamu yàlla daan liggéeyal sëriñ Touba milliards yu bari jaar ci ay loxoom mu jox ko Serigne Touba waaye ba muy dem. bâtiment bi dangay séen seen fer ba ci biir bu tawee ñuy taaj ay paan di ko taatan wax day senn te loolu day ku ne woon sëñ Modou Rokhaya ak aw turam ak fi mu àgg ci àdduna ku ñëwoon néeg buy senn la fi bàyyi ci àdduna nga weddi ko te bàyyiwu fi lu mat téeméeri junni ci xaalis te ay millions yu bari jaar ci loxoom dem at mi muy dem di bàyyi néeg buy senn joxe na 19 millions addiya kon kooku am na lu mu gisoon ci àdduna lu ko ñor sëriñ Cheikh nag ne ginnaaw bu ma defalee bëggug sëriñ Modou Rokhaya ci njabootug sëriñ Touba gi tàmbalee ko ci Cheikh Mouhamadou Mourtada mi nga xam ne 1996 ji sëriñ Cheikh Anta fab sëriñ Modou Rokhaya yóbbu ko ci mawlud bii 1997 la ko Cheikh Mouhamadou Mourtala jox ab liggéey ca Daaru Salaam ndaan muy liggéeyam bu jëkk mu liggéeyal ko yàlla ba liggéey baa nga noonee noppi na mu teg ci njabootu sëriñ Touba gi ba ci Cheikh sëriñ tubaa seex Sidi El mu defal ko liggéey bii mu ko doon liggéeyloo ci kër sëriñ tubaa gi mu ne nag ginnaaw liggéey yooyu yépp noppi na naa wëlbatiku nag. dem ci ki ma doon liggéeyloo muy Serigne Cheikh Serigne Modou Rokhaya ma defaral ko nag fii mu doon jaamoo yàlla. kàddu yi nag kàddu yi jaajëfal la rek ak feeñal mbégte ndax ku woote lu mel nii ñu wuy si la wuy si bu demee nii ak fi jamono ji tollu kooku faw nga joyal kàddu cant yi nga xam fees na dell sa xol li ci xol bi lépp nag làmmañ yi mënu koo tudd waaye def li ci xaj rek li ci des ñu yéene ko ci sant bu baax mbooleem ñi nga xam ni am nañ cër ci bis bi doon te bis bi ñépp a ko bokk te jiitu ji waa kër sunu maam Baye Cheikhou Mbacké di ñaan suñu borom subhanahu dolli ko yërmande dolli ko ngërëm ci barke Cheikhou Khadim di ziar ak njabootam yëpp di ñaan suñu borom yàggal leen fi tamay leen wér mel ni foofu dañ ciy dellusiwaat incha allah te ko gis ni ñu teewee rek. yaa xam ni dëgg yàlla xol yi sedd na lool te lu gis Serigne Mbacke doon dagu rek ci rafetal xam nañu lu kawe njortam kii xam nit moom la ko darajaale di seenu rak di ko am pastéef di ko am ak taalube di ko am yëkki doomu aadama muy Serigne Modou Rokhaya Bousso mi ngi nii teew teew ak magam Serigne Cheikhouna Bousso ñoom it ñu ma ko waxee xat-xat yi ku ne xam na ni bërki démb rek la fi seen waajur Serigne Fallou Bousso imam bàyyi ko ba fi may waxee gan ñaa nga ca kër ga waaye yittewoo ak pasteef ak yitte ji moo waral seen teewaay fii sëñ Modou wax na léegi day na ma léegi ni ma kàddu googu nga xam dañ leen ko yéenee jox sax mu sëñoon ma dugalaale ko ci sama kàddu yaatal la ko ko Euh, du ñàkk ñu tudd nag ñenn comme ni ko Serigne Mbacke bëggee tudd santaane ñi nga xam ne teew nañu fi te li ci jiitu mooy daaray kaamil bu daaru salaam ak mboolem ñu doon jàng alquran lu jiitu bis bi ak ci biir bis bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di ñaan nag alquran jooju ñu fi jàng yàlla na yàlla nangu lépp te gërëm ko te defal ko yool bépp ki ñuy sant muy Cheikh Modou Rokhaya waaye ki ñu ko duppee di bàyyi Cheikh Mbacke ak mboolem booy dawle yépp suñu borom def ko muy yërmande ak ngërëm ci ñoom ci barke Cheikhul Khadim di sant itam nag kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi te bis bi at mu jot ñu yónnee fi seeni njaboot wala sax ñu teewal fi seen jëmm jiitu gi sëriñ Siidi Mbàkke moom sëriñ Ibrahima Mbàkke Ndar teew na fi ci suba ñu koy rafet lool di ko ñaanal suñu borom yàggal taxawaayam euh, sëriñ Mbàkke moom sëriñ Amidoun teew na fi ci ndigalul sëriñ As moom sëriñ Amidoun sëriñ Abo Mbàkke moom sëriñ Muudu Maamun yebal na fi sëriñ Jiili mu teewal ko fi sëriñ Cheikh Gaynde moom sëriñ Muudu Roqeya moom it teew na fi sëriñ Siidi moom sëriñ Hamidun moom it yeble na fi e, soxna maam Anta Mbàkke moom alaaji Saam moom dafa bokk ci bis bi moom it teew na fi sëriñ Abo ibnu sëriñ Mudu Roqaya moom it teew na fi e, sëriñ Maam Moor moom sëriñ Mudu Roqaya moom it teew na fi Eh, njab waa kër Soxna Astu moom Serigne Modou nga xam ne daa bokk ci ñi nga xam ni dañ leen di fàttaliku ci bis bi ñaan suñu borom dolli yërmande ci ñoom njabootam teew nañu fi ak turandoo Soxna Astu Mbàkke yi bokk na ci ñoo ñooñu fi teew ci njabootam Serigne Muxtaar Jaw soxna Maymuna Jaw soxna Maam Anta Jaw soxna Mbooja Jaw ak soxna Marema Jaw ak soxna Ayda Jaw ñooñu la ñu wax ni ñoo fi teew ci waa kër soxna xastu moom Cheikh Mouhamadoul Mamoun euh, ñi nga xam ne nag ku xool carte invitation yi yaakaar naa ni barina ay nataal yu ñu ci gis ñoo xam ne sëriñ daf leen ci fàttaliku yàlla dogal mboolem ñu ci nekk ñëpp ci nataal yi ñu leen ciy gis ñu leen ci ñu leen ci fàttaliku waxtu wi daaw ñu ngi fi woon ànd ak ñun bés bi suñ boroom dogal ñu jiitu ji te ñooñu kenn ku ci nekk ci ñoom am taxawaay ci bis bi walla am ak jëflante ci sa diggante ak Serigne Mbacké te wolof li wax lu am solo muy kóllëre ginnaaw lay féete te gënoon xam na ne bis bi dañ cee yaakaar ay ngërëm yaakaar ci aw yiw yaakaar ci taw féexi suñu boroom moo tax ñuy dugal ci ñooñu ñëpp euh, ndigal li am na mooy ñu tudd leen ci bu gaaw jiitu gi sunu kilifa gi fi bàyyeekoo woon bu yàggut muy sëriñ Mame moor Mbacké moom alhaaji tàkko nekkoon xalifa bu maam Cheikh Anta ñu ko ci fàttali ko di ko ci ñaanal sëriñ Muudu Maamun Mbakke moom suñu Ibra Ndar moom it waxtu wi daaw fi la ko fekkoon te yàlla dogal mu bokk ci jiitu ñu ko ci fàttali ko di ko ci ñaanal soxna Astu Mbakke moom ma tuddoon léegi moom sëriñ Mamadul sëriñ Afiya Gay ca Daaru Rahman di wëllërew nekkoon kilifa lool waaye di wëllërew soppoon sëriñ Mbakke lool dañ ko jàppale ci lu bari kóllëre googu tax at mu jot dañ daan dégg turam ñu koy tudd waaye ren yàlla dogal na jiitu gi na ñu ko yéenewaale ko ci mboolem yool yiw yi fi xalaat di ko fi séentu Serigne Gora Ngom Xelkom Baas moom it di mbokk ci noonu mooy ndijaay Mourou Mamoun Kayre mi ak Mourou mbay jaw waaye yàlla dogal itam mu Serigne Dieng ñu séq ko ay liggéey ba fi ñuy waxee nii bokk na ci santé yi Serigne yor Fuuta ci moom moom yi la jaare woon ñëw ci loxoom. ñuy jëflante jëflante bu rafet ci wàllu métier mi jëflante jëflante ji rafet ci wàllu mbokk gi ba yàlla dogal moom it mu bokk ci ñi jiitu ji sëriñ di mottali kóllëre googee di ko ci fàttaliku ndax koo séqal liggéey mu rafet ba yàlla dogal mu jiitu ji séq mbokk te ku ne xam ne ak mbokk li suñ borom diggee mu koy sàmm ba jiitu ji kooku yelloo na ak fàttaliku ak ñaanal loolu moo ko ci boole muy sëriñ góor a ngom xel euh, euh, kom baas ak suñu benn waajur bu ñuy wax Baye Dame moom itam njabootam ci sëriñ lañ nekk di jàng métier waaye mu nekkoon kilifa goo xam ne ku bàyyi woon sëriñ xel la sëriñ boole ko ci ñuy fàttaliku leen ñaanal ci bis bi. yaa soxna Astu Diop moom itam njabootam ñi ngi fi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax ak soxna Kiné Diop moom itam njabootam ñi ngi fi bàyyi ñu kenn seeni taxawaay rafet na. dëkkandoo yi xam nañ ni bis bi seen bis la te ñu ngi koy sàmm ñu ngi koy rafetal kon ñu ngi leen di sant di leen jéggulu itam nag bépp gàllankoor goo xam ni bépp génn gàllankoor am na ci jëm ci benn benn dëkkandoo ñu ngi koy tuub te yàq tey jéggulu te xam ne jubluwaay bi loolu feeñal yéene ak bëgg yu wuñu bokk la rek moo ko waral waaye bëgg amal kenn ak Serigne Mbacké ak yi mbokkam yépp ñu ngi maase di tuubal ñépp man jaabi